Focus Investment Group ci njiital Serigne Khadim Kebe taxaw temm ci ay projet yu mag yoo xamante nii day gën a suqali dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Touba ci wàllum koom-koom xaatim nañu ab lëkkaloo di partenariat jaarale ko ci seen filiale bi nga xam ne moom moo di lekku fii ak waa Daara Hizbut Tarqiyyah loolee ñu ngi ko amalee ci complexe Daara Hizbut bi nga xam ne moo nekkee ci Touba ci alxamis dëppoon ak le 16 mai 2024. kontaan nañ tey si sunu daje bi nga xam ne daje bi dafa war a tënk. So lëkkaloo mooy convention bi ñu doon signé pour am yaakaar Sénégal liggéeyal Touba liggéeyal communauté mouridisme euh, bi taxawal dafa nekk société boo xam ne dafay agriculture intensive sous serre du yëngatu ci formation ba comme dañu ne consommer local moo tax ñu tudde lekku fii waaye wax rek consommer local amul njariñ li ëpp njariñ mooy il faut produire local d'abord avant de consommer parce que boo produirewul da ngay jéggane ji rek looloo tax lekku fi tàmbale ci tool yi ci mbay mi ba taxawal tool ne produire local et après pour wan ne gëm na li muy def te mu ngi ciy invité sénégalais yi mu ne consommer local moo tax itam sunu biir liggéey ñu créer lekku fi distribution ba yàlla def yéene bi ñu amoon fi ñuy tàmbalee muy Touba ubbi nañ ko tey depuis mois de mars muy le supermarché centre commercial Ndiouga Kébé bu Touba. man benn yëf rek laa ci gis mooy naka la ñuy def ensemble pour liggéeyal sëñ Touba fexe ba am benn impact social boo xam ne nit ñi dinañ mën a retrouver seen dignité ndax dignité mooy liggéey koom-koom liggéey jaamu yalla ni ko sëñ Touba euh, santaane donc ñun Focus Investment Group suñu objectif moy développer Touba contribuer en tout cas fortement si ñi nga xamné ñom ñoy développer Touba donc pour def fi ay projets yo xamné ça va être des projets innovants. daara hizbut di yëngu ci walum production moo xam mbay la wala sàmm di am mbégte loolu lëkkaloo ak euh, ñun Hizbut Tarqiyyah mi ngi ci éducation mi ngi ci agriculture mi ngi ci élevage mi ci domaine yu bëri loolu nak su fekkente ne yéen da ngeen di liggéey ci secteur distribution ñun ñuy liggéey ci production lëkkaloo pour mu doon loo xamante ne dañuy fexe ba qualité feeñ ci li ñu tuddee préférence nationale loolu kon dafay objectif bo xam ne suñ ci jàppalantee mën naa baax loolu moo waral ñu tàmbali lo xam ne euh, yaakaar naa ne waxuma la Touba waaye Sénégal gépp dina leen amal njëriñ ñuy ñaan nag suñu borom barkeel li nga xam ne mooy partenariat bi ñu signé. mboolem ñaari parti yi nga xam ne ñoo xaatim lëkkaloo bi ku ne gis na ci sa moroom ay qualité yoo xam ni rafetlu nga ko lool tax na nga rafet njortu ci li ci kanam. di ñoo xam ne ñu dañ leen gis ñu gis ñuy doxee noo xamante ne dëppoo nag ay sénégalais yoo xam ne xam nañ seen bopp xam nañ fi ñu jëm te it fonk nañ ay valeur loolu bi ñu ko gisee ci ñoom rapprochement bi ci euh, li nga xam ne moom lañ bëgg ak noonu lañ mel. pour ra pour rataxal liggéey bi itam kontaan nañu kontaan nañu ñu ngi sant yàlla di sant Hizbut Tarqiyyah ndax wóolute ak nangu ak gëm ñu ànd liggéey ndaxte ku xam Hizbut ni ko président Youssouf waxee léegi éducation élevage agriculture ak lekku fi yaakaar naa ne ñaar ñooñu bu ñu lëkkaloo.

li li nga si daj lépp nag xam nañ ko xam nañ ne président waaw waaw dëgg la kay dëgg la waaw waaw waaw d'accord jërëjëf jërëjëf jërëjëf amiin amiin waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf Porsec boobule dana mën a créer lu toll ci cent mille emplois muy téeméeri junni xëy moo tax ñu bëgg a lëkkaloo ak université bi nga xam ne sëriñ bi moom la taxawal ci tuubaa ngir ñi fay génn ñu mën leen caa jël ñu fay liggéeyee. liggéey liggéey bi nag sori na te tey baax nag si université parce que dinañ am lu mat euh, téeméeri euh, junni nit. Mhm. yu fa war a liggéeyee si juróomi ak juróom-benn at yi di ñëw. ndax kon université bi. Mhm. ñu fay génneeg yooyu. Mhm. ñu ngi xool sax nag la ñuy def pour ñooñu ñu mën leen former pour ñu mën a liggéey daal si projet yi fay nekk. waaye liggéey ba liggéey baa ngi avancé bu baax. commencé nañ ko commencé nañ ko dessiner sax waaw port bi waaw commencé nañ ko dessiner ba ba sori ba sori ba sori nañ si waaw poor bi ak genre marché bi fay am baykat yeeg yooyu ak zone industrielle bi nga xam ne dina permettre nit ñi daal ñu mën a ñu mën a kii waaw ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si bu baax ngattandu sëriñ bi da ngeen ci am waaw amiin amiin dal bu baax ngattandu sëriñ bi képp ngeen ci am amiin amiin amiin jërëjëf ak tawfeex sëriñ bi rek ngeen ci am waaw mooy tawfeex sëriñ bi yemul fenn moom lañ ci ñaan moom lañ ci ñaan ah, am na yaqin na ci xam nañ ko moom moo ci am insha Allah lépp yomb daal bi ñu ko commencé ba léegi daal daanaka amuñu ci benn jafe-jafe ñu ngi la ci sant bu baax ñu ngi la ci sant bu baax